الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bokk jullit yi ñu ngi leen di dénk ñu bokk ragal yàlla suñu boroom jaamu ko bañ koo bokkaaleeg dara yaakaar ko sukkandiku ci moom ñu ngi leen di dénk ñu bokk topp suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam doyloo ko ci suñu digganteeg suñu boroom ba duñ jaamoo yàlla lu dul la nga xam ne moom la ñu téete jëmee ñu ca woon gannaaw loolu day ñu ngi nii barki démb boo njaay lañ doon dalal ramadaan tey jii ramadaan dem na woon ñu gannaaw lan moo taxoon ramadaan ñëw suñu borom yàlla mu ni weeru koor day mi ngi noonu di weer woo xam ne ci la wàcc alquran mu nekk njub ñeel doomu aadama yi nekk luy teqale diggante dëgg ak fen ngalawaay yéen ñi ko fekke woor leen ko yéen ñi ni feebar wala ngeen nekk ci tukki fay leen bis ya ngeen ca gàddu woon mu ne nii day laa ko yombale ngiree ngeen doon ñuy sant mbokk weeru koor a ngi dem na doomu aadama yi séddilikoo nañu am dañoo xam ni ah yóbbanti nañ ca jëf yu baax yu sell yu seen boroom gërëm mu jural leen ngërëmal yàlla yal na yàlla boole ñu ca am na it ci jaam yi ñoo xam ne sàggane nañ ko tooñ nañ ca seen bopp ramadaan moom dem na yóbbaale ne ñaari seede yooyu yépp tey weeru koor jeex na ñu war a def lu ñuy taxaw lu ñuy tuddee taxaw seetlu waaw gannaaw weeru koor lan mooy war a nekk suñ taxawaay te mooy jubluwaayu suñu xutbab tey bii lan mooy taxawaayu jullit gannaaw weeru koor mbokk xamal ni weeru koor daa taxoon jubluwaayu màgg yu tax mu ñëw doomu aadama suñu borom yàlla moo ko bind am lu mu ko sant am lu mu ko tere loolu nag mu am ay noon yoo xamee ne nii ñoo koy tey def loolu noon bi gën a màgg muy seytaan ak ponkali jinne ya nga xam ne ñoo koy dimbali ci yàq ñooñu bu weeru koor jotee suñu boroom tënk leen mu des beneen noon bu mag muy suñu bakkan bakkan boobee suñu boroom yàlla nattoo nu ñu dimbali koo ca ci xiifal ko maral ko loolu it moo tax constat bi ñu constaté ci dëkk jullit ñëpp mooy weeru koor bu ñëwee nit ñi seeni bàkkaar day wàññeeku bu baax a baax loolu nag mbokk lan la ñuy jural mooy doomu aadama yi mënoon a sori bàkkaar daa di un sax ca la nga xamee ni mooy njubug yàlla ga looloo tax bokkoon na la gën nga la waay njëlbeenu taxawaay boo génnee ci weeru koor nga bari lool di jéggulu sa boroom gannaaw jaamu yàlla gépp la ca gën mooy jéggulu tey bi nga sëlmalee sa julli alxuraan ak a baax waaye kiy sëlmal julleem rek commencé alif laam miim jàng alxuraan kee commencé sëlmal julleem commencé laa ilaha illallah laa ilaha illallah nañu xam ne lay sunna mooy fi nga sëlmalee sa julli bala ngaa wax dara wala ngay def dara nga ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah comme na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon defee yéen ñi aj màkk ba pare suñu borom yàlla mu ne bi ngeen jógee arafat wàcc ca masharul haram lam ko tëjee mooy wastaghfirullah jéggalu leen yàlla loolu moo tax ngay def qiyaamul layl suñu borom mu ne kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashaar hum yastaghfirun ñoo ñuy taxaw guddi gi yëpp di ko naafila suñ demee ba nag juddu gay waaj a jeex dañuy taxaw di jéggalu kon nga la waay yow jullit xamal ne jéggalul lépp loo xame ne nii rëcc rëcc la yoo amoon ci weeru koor gi xamal ni zakatul fitre bi ngay génne borom xam-xam yi dañ ni dafay mel ne ñaari rakk yi sujjóot waa ji nga xam ne dafa amoon ay rëcc rëcc ci julli gi bi mu sëlmalee mu sujjóot ñaari sujjóot mu defar julli gi yépp zakatul fitri boobu it bokk na ci rëcc rëcc yi nga amoon ci weeru koor ci wax li nga wër ta wax xool li nga wërta xool dégg li nga wërta dégg yooyu yépp da koy far kon nga la waay ñu góorgóorlu ca la nga xame ne nii mooy baril istixfaar baril istixfaar boobu lan la ñuy yóbbee mooy ñu xam ne suñu borom mu ni dama indi weeru koor ngir ngeen ragal yàlla ca suñu borom mu ne mi ngi nangul ñi ragal yàlla innama yataqabbalu llahu min almuttaqin ñi ragal yàlla la yàllay nangul loolu lu ñuy jàngal bi nga génnee ci weeru koor noonu ngay jégguloo say bakkaar noonu nga fexe téye sa bopp di góor-góor lu baax na ma meloon ci weeru koor bi téye sa bopp ci bakkaar day loolu dinaa ko def doo mel mukk ne soxna see nga xam ne ba koor jotee daay commencé col col gu yiw bàyyi ay minijipam ak i pantalon seereem ramadan passé na mu ne ah dama cay dellu mbokk loolu du ragal yàlla koor dafa ñëw ngir suuxat ci yow loo xam ne bu koor gi passé it da lay gunge nekk ak yow loolu moo tax ba borom xam-xam yi dañ naan bokk na mandarga bi wañu ne yow kat yàlla nangul na la sa koor mooy na nga meloon ca koor ga ba koor ga passé it noonu nga mel ci taxawee ndigalu yàlla yi ci bàyyi la nga xam ne moom mooy tere yi mbokk bokk na lu dangereux weeru koor passé ci yàlla baalu la yonent bi alei salatu wasalaam mas na nekk ci xadis bu gudd mu ne amin amin ñetti yoon bañ ko laajee bokk na ca lu mu wax mu ne jibril moo ma dikkal ne ma ku dund weeru koor ba koor jeex day mu sàggan ba yàlla jéggaloo ko kooku yàlla na ko yàlla soril yërmandeem mën a amin kon la gën a màgg mooy ngay jéggalu jéggulu bi gën a mag mooy sori lépp loo xam ne koor doxoon na ko sa digganteeg yow ci wax ju bon ak jëf ju bon nga sori ko ngallaawaay mbokku jullit weeru koor du weeru dagg tuya tuyaaba weeru koor day weeru encouragé ci tuyaaba ba nga xamee ne boo ci jógee it nga bañ a fàtte loolu looloo tax ngir bañ nit ñi jàpp ne of koor jeex na ba déwee nit yonent bi aleyhi salaam ni ki góor-góorlu ba weer wi ñu nekk muy shawaal nga woor ci juróom benni fan suñu borom day considéré ni kii at bi yépp da ko woor lu waral loolu ndax nit ñi sonn nañ ci koor gi ñu bëri yàkkamti nañ kañ lay jeex kañ lay jeex ba jeex na yow na nga bàyyi ba mu jeex nga teg cay naafil six jours yoo xamee ni nii weeru koor gis nañu ne fukki weer lay nekk ci yàlla amul benn tuyaaba booy def lu dul yàlla ful ko fukki yoon kon weeru koor bi nga woor mel ni ne woor nga fukki weer ca yàlla mu des ñaari weer di 60 jours ci lu mu bari bari soo waree 6 jours buñ ko defee par 10 muy 60 jours day mel ne yow dëkk ngaa koor lu ci waay mën na ko def bu la neexee tegale ko woor ko benn yoon bu la neexee woor ko lundi jeudi ba mu jeex bu la neexee fii ak shawaal jeexul boo ci waree juróom-benni fan mel ne nga koo xam ne da ngaa dëkk woor ay yow mbokk jullit xamal ni saxal jëf ju baax jële weeru koor jàngal xamal ne ci yaakaar yu gën a màgg la weeru koor day jàngaloon noonu la la ngay jël sa alal di jox nit ñi ñuy dog jël sa alal di jox masaakiine yi ngal la waay continuer loolu ci weeru koor weeru koor jàngaloon na la ngay def qiyaamul layl di dem ci jàkk yi di julli fukki rakka ak benn guddi gu nekk weeru koor jàngaloon na la baril ba nga doon banal jàngal Quraan xamal ne yonent bi alayhi salaam bañ ko laajee ban jëf la yàlla gën a bëgg mu ne mooy jëf bi jaam bi saxal ak lu mu néew néew néew mi ngi noonu la nga xam ne saxal nga ko ci jaamu yàlla lu mu néew néew moo gënal yàlla waa ji defoon mille fois li nga def waaye da ko def ay ay yoon rek bàyyi ko kon xool leen la ngeen doon def ci weeru koor yàlla taxoon ngeen koy def yàlla moomee di borom weeru koor yàlla moom moom weer yi ci topp tuyaaba ja nga doon sàkku ci weeru koor lu mel noonu it tuyaaba du doy yowmal qiyaama xamoo fan la la yàlla di di di yërëmi kon ñu góor góorlu waat ngal la waay bu leen bàyyi naa fi day ni ngeen ko defee ci jàkka ji ku ne mën na ko même bu doon rakk bu ñu dañ cay jàng xul wallaahu ahad sax yaa xam fexeel di julli fukki rakk ak benn fexeel di génn ay sarax yonent bi aleyhi salaam nee na jaam bi li nga xam ne saxal na ko di ko def bis bu feebaree yàlla ne malaaka yi continuer leen bindal ko ko bis bu tukkee continuer leen bindal ko ko loolee mbokk doon loo xam ne nii ku ne war na ci bàyyi xel mbokk weeru koor la jàngaloon nañu lii di téye sa bopp lii di jéggale yonent bi aleyhi salaam mu ne bu ñu jógee fële indi la histoire ne ko dama woor ñetti yoon loolu it na ànd ak yow xamal ne suñu borom nee na képp koo xam ne dafa muñ mu jéggale ay payam mi ngi ci yàlla tooñ mën na laa jóge fu nekk ci njaboot gi ci dëkkandoo yi ci jullit yi ci yéeféer yi ci kum mën a doon ngal la waaye del jéggale ci yàlla tax del muñ ca yàlla tax ñu góorgóorlu mbokk ci la nga xamee ni nii yàlla yombaloon na ko ñu bari ci ñun tey jii ana are bari ay jeunes xool leen di bi weeru koor jàkk yi fees del waaye bu yàggee ñuy wàññeeku di wàññeeku di wàññeeku am na ñoo xam ne ni buñ ñee au war ramadan au war jàkka mbokk loolu musiba la nañu góorgóorlu ba ni ñuy ñëwee juma ñu koy ñëwee yeneen waxtu julli yi am na benn xalaatkat juif bu bon bañ bokk na lu mu doon wax yàqkat yi nga xam ne ñoom la jiite mu ne jullit ñi tànk gisoo leen ni ñuy fonk juma ñu fonk ko waxtu julli juróom bu leen leen ragal mbokk yàlla mi woote juma ba tey kuur bi fees na mbedd yi fees na yàlla moo woote tisbaar ak takkusaan bilaal miy noddal juma mooy noddal tisbaar ak takkusaan kon nañu góor góorlu dem ci néegu yàlla yi di ko def nañ ko doon defe ci weeru koor chehru ramadan ngi nii suñu borom ne ne damaa caa wàcce alquran waaye wàccewu ko ngir ñu pratique ko ci weeru koor da ko wàcce pour mu nekk aw dundin looloo tax alquran jooj nga la way sas ci sa bopp benn jukki da ngay jàng lii di benn isib wala dix page wala cinq page wala trois page par jour saxal ko ngal la waay lu mu yàgg-yàgg da ngay gis ne balaa yàgg rek nga jeexal kaamil bi même bu doon da ngaa sas sa bopp rek danaa jël cinq feuilles cinq feuilles rek muy dix page wallahi ñaari weer yu nekk da nga wàcce da nga wàcce kaamil bi loolee nekk tuyaa ba ju rëy boo feebaree ñu konti lu ko bindal boo tukkee ñu konti lu ko bindal loolee ku nekk ci ñun war a góorgóorlu war cee bàyyi xel ay yéen ba ko julit xamal ne sunu noon ba day yàlla tekki na ko muy seytaan ak ñam àndaloon ñi ngi jógaat di yàq bokk na seeni yàq dox sa diggante ak jaamu yàlla yi taaralal la bakkaar yi indi noonu ci diggante yi loolee gannaaw ba bàyyi leen ko xel suñu borom mu ne inna sheytaana lakum aduwan fattaxizuhu aduwa bàyyi leen ko ca mooy bu leen topp ay yoonam lépp luy bakkaar yoonu sheytaan la lépp luy baxal sa xol pour nga bëgg a fayu bëgg a def lu bon ci sheytaan la jógee ngal la waay bu ñu may sheytaane occasion boobu ci ñun mbokk nañu góorgóorlu suñu yeneente sallallahu alayhi wa sallam day daanañuy wax ne ki nga xam ne dafa woor weeru koor ba rafetal ko dana far bakkaar yi nekk ci diggante bi ba baa weeru koor di ñëwaat su dee moytu na bakkaar yu mag ya looloo tax ba ngal la waay góorgóorlu leen ci bakkaar yi mag yi moytu ko seen kémtalal kattan moytul ma bokkaale njabar rey nit lekk riba moytul ma la nga xam ne mooy alilu jirim moytul njaaloo gu bon gi càcc gu bon gi sàngar sàngara bu bon bi ila ila axiri su ko defee loolu dalay tax ba rëcc rëcc yépp suñu borom yàlla dala koy daal baal dala koy daal di jéggal nañu góorgóorlu xam ne jaamu yàlla gu yàlla nangu day jur bànneex bu yàllay bàyyi ci xol la nga doon def ca jaamu yàlla ca naafila ya ca sarax ya ci téye sa bopp su dee yàlla nangu na ko bokk bokk ni lu mu lay fay muy xalaawatul iman dalay neex sa xol moo tax suñu borom mu ne walakin allaha xababa ilaykum al iman wa zayyanahu fi qulubikum yàlla moo leen bëgguloo ngëm yàlla taaral ko seen xol yi su ko defee bokk ni julit la muy jàpp ne yàlla nangul na ma mooy day la ma doon def ci weeru koor bëgg na ko bëggeel goo xam ne dara mënul tax mu daal di koy bàyyi mbokk weeru koor a ngi nii ñëwoon na doomu aadama yi séddilikoo nañ ci ñetti wàll am na koo xamee ni nii day nam dugge ci weeru koor nam nekke woon ci ay càggante ba weeru koor ñëwee ñëw na ba jàll amul lenn loo xamee ni nii ah weeru koor yóbbee na ko ko lu dul ay ay bakkaar ca mooy ñu jàpp ne weeru koor kat man ci rek laa war a def lu baax ci laa war a moytu lu bon waaye koor gi jeex na koor gi jeex na night club yaa fa des ak sama jong may nga doon àndal ak carte gaag nangam ak nangam mbokk kooku xamul luy weeru koor passage bi mu jaar ci weeru koor loolu nekkul ci moom lu dul musiba am na ñaareel koo xam ne nii moom avant mu weeru koor ak après weeru koor amul benn changement bu mu am ci moom waa gars yi ordonnance bi nga dem jënd ko naan ko ci amul ci benn benn changement loolu du yàq ala la waay naka noonu ñu weeru koor mbokk dafa am lu mu la war a dolli ci sa wàllu diini am lu mu la war a dolli ci nga moytu la nga xam ne mooy bakkaar yi doonte ne mbokk ñetteel ba mooy ko gën ki nga xam ne moom weeru koor ñëwee profité na ci jàng ci yar ci boppam ba bi weeru koor ñëwee mu am beneen comportement ci jaamu yàlla yëg na man kat weeru koor bi yokku naa ci lii la ma doon naafila yokk naa ci lii la ma doon jàngal xuraan yokk naa ci lii sarax ya ma daan génne yokk naa ci lii mu yëg ne weeru koor boobu am na jeexital bu mu bàyyi ci moom moo tax suñu borom yàlla indil ñu ñaar yi mu ne la allakum tattaquun ngiree ngeen ragal yàlla ca mooy moytu lépp luy bàkkaar laallakum tashkuruun ngiree ngeen sant yàlla ca mooy yokk la nga xam ne mooy seeni jaamu yàlla a rasul sallallahu alayhi wa sallam yàlla ne ko baal naa la loo ma sa def ci bàkkaar baal naa la loo nar a def ci bàkkaar sallallahu alayhi wa sallam taxaw guddi lu jógee quatre heures de temps cinq heures de temps di ko naafila ba tànkam yi néew yi boole kook ay jooyam su ne Aysa ne ko ay yum yàlla yónni ndax doolal sa bopp yàlla baal na la mbooleem bàkkaar mu ne ko afala akuna abdan shakura ndax du ma nekk di sant yàlla su ko defee jullit dañoo war a sant yàlla ci diini lislaam bi mu ñu tànnal weeru koor bi mu ñu tànnal alxuraan bi mu ñu wàcceel ubbi gi mu bunt ubbi ay bunti njéggalam ak yërmaande ñeel ñu loolu yi dañ caa war a sant yàlla ba buñ ci jaaree ba jàll ñu xamal suñu boroom mu gis ci ñun ne yàlla kat ordonnance ba nga ñuy bindaloon résultat ba mooy am na lii loo xam ne yokk nañ ko ci gën nañoo daw say bakkaar gën nañoo jege say jaamu yàlla loolu nag mbokk la la cay gën a dimbali mooy ñaan ngal la waaye boo jógee ci weeru koor wala jaamu yàlla goo jógee xamal ne la gën mooy del ñaan yàlla rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawaabu rahim mooy yàlla yal na ñu nangul jaamu yàlla gi ñu santoon yal na ñu nangul ca tuub ñu la nga xam ne moom mooy suñu bakkaar ba sax dañu naan lenn ci salafu saalix mooy borom xam-xam yu jëkk ya bu ñu masaan génn ci weeru koor heure bu ñu toogee ba seen xel dem ci weeru koor dañuy ñaan yàlla nangul leen durant juróom benn weer fu seen xel demee ci weeru koor ñu ngi ñaan yàlla nangul leen suñ demee ba juróom benn weer des seen diggante koor gi di ñëw fu seen xel demee ci koor gi ñu ñaan yàlla fekkeloo leen ko gis ngeen lii mooy ñi nga xam ne dañoo xam seen borom su ko defee ñi ngi ñaan suñu borom yàlla mi ñu santoon weeru koor yal nañu yàlla nangul suñu koor yal nañu yàlla nangul suñuy naafila yal nañu yàlla nangul suñuy sarax nangul ñu suñu njàngum alquran waaye yal na yàlla aar ñu ci musal ñu ci lépp loo xam ne ni dañuy jural meram yal na yàlla musal ñu ca bàkkaare yi ca màgg ak ya ca ndaw yépp yal na yàlla fajal ñu suñuy aajo teggil ñu la nga xam mooy suñuy tiis saxal ñu ala siratil mustaqim babaa ñuy dajeeg moom ci àjjana yu kawe ya اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين